taalibe yi man nag fi ne nii wax dëgg yàlla daa damaa jommi ndax fine ne ginnaaw dañ doon tëddoo vingt heures la xaw ma huit heures léegi ñuy defloo ay masque dama masque yi ne may fàtte lay fàtte sama morom man nag maa bëgg bokk yi nga xam ne ñooy saytu ñu tëkkut masque suñu bàyyi ma xel bu baax ba ñu ma takk ma waaye su ma ko defee nii damay fat moo tax ma wut sama kol léegi su ma wutee kol gi nii su ma jubee gars yi ndax tànk rek bi ma jubee wenti wiir damaa gis gars yi rek mais damaa gaaw ne poymet rek ban jàll taxaw ci pharmacie baa ji boobu ban jàll rek ma door a jàll dox sama yitte corona nag yow sa mbir wax dëgg yàlla mi ñuy bëgg a jaaxal ndax nu ni waxee na kook yow nu ni nu ni nu ni sàkku nañ leen dimbal laaj la sa teeg bakkan comme sa teeg bakkan nga fi duggee woon nga lànk bañ a dem xam naa nag fa nga jëm ak yow fi fa nga jëm ak ñun nag xam naa xam nañ ko fi mu nekk ndax ginnaaw yaa ngi takkaloo ay masque guddeeg bëccëg masque yi moom boo ko takkee kenn doxam lay nuru kenn maanaam aw béy ngay nuru béyu xam nga nawet bu ñëwee béy yi ak xar yi pot yooyu ñu leen takkal pour bañ ñu lekk tooli jàmbur yi fi ne ñoo raw ñoo raw ñoo raw béy ñoo rawi xar koro te ñoo dimbali sëñ koro léegi yow wax dimb ñu wax ñu wax ñu wax ñu kan nga wax ñu góor nga wala jigéen nga bu ko defee ñu mën laa ñaan dimbal ndax yow Ogola la xaw ma Ogola daa ñëw rek ñu coow ko mu dem yow nag ku dëgër bopp nga nag fatt nga ñu malaaka ak jarak ndax yow doole dangaa boole doole dooley segg ak juy ñay dooley segg nga doole yi ñay doole dooley gaynde yi tene doole boole doole yëpp nag xam nga kon yàpp doole ñëpp léegi ñëw ginnaaw yàpp doole ñëpp ñun dañ lay ñaan sa teeg bakkan rek ngir yàlla yónnente bi ak jëmmi Sëriñ Tuubaa parce que tubaab dañuy enavoni par fii des incarnations de soutenir de perf de ouvi de de traitement nit ki soo koy tubaab dafa wax ne nit ki soo koy ñaan te bëgg mu may la bu ko woon naqar deret bu ko jaay doole bu ko jaay mer ñu ñun nag xaraa ñu reetaan la sax sañ koro <laughs> ba nga xam ne ñun jaay ñu la mer jaay ñu la naqar del te tey bakkat daal la lay ñaan rek sañ koro nga dellu fa a jóge woon ndànk ndax yow <laughs> boo yàggee da nga ñu toroxal ndax gi <laughs> man moom ab sëfoor laa yaakaaroon alo Dakar yi moom alo Dakar moom tëj na moom tëj na ñu ne déeta waaye ñu ne taxi ñu may la ñaari nit ci taxi mi léegi boo ëppalee la ñaari nit yooyu am na daan yun la yun la ci am alamaan muy ay kaso yooyu te man kaso moom kenn duma ma ko nettali léegi oto ba fan sëñ koro far naa gaare sama oto <laughs> ndax bëgg jàmm rek ko sëñ koro naa léegi man oto ba delloo naa ko gaare naa ko xanaa ko yurtu oto moom da nga mucc yooyu ndax kaso dama ko ñamoon xam la fa ne yàlla ci yàlla musal yàlla bépp jullit léegi nag ñu ngi lay ñaan ñaan ci alxuraan nga dimbali ñu ndax wa maa jëmi bilal ilaahi mahdi suratan lasi bi anna min maxtuuni yasrul lilaayi xasiman mahas sabat bax daawu kon loolu ñu ngi la ci ñaan rek sa teeg bakkan ba tey comme <laughs> may réer ba nga xam ne méréew ma daal ndax yow <laughs> moom xam naa ko garaaw nga ndax ku la jaay naqari rek yooyu liy tooy ci moom lay jógee moo tax <laughs> su ma waxee ba yàgg ma xawaree tuuti ba nga xam ne forcé wu daal sëñ corona dimbali ñu ngir yàlla ngir yàlla rek ndax liñ dencoon jeex na tàkk ndax fi ne wàllum sàcc moom boo yàggee ci réew mii dana bari ñoo xam ne nekkutoon seen mbir waaye daan ci dellu kon nag ñu ngi lay ñaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam nga dellu ndànk fa nga jóge woon sonn nan trop waaw ñun nag leen xaw a tane ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Touba euh, sunu jàmbaar jii moom buñ ko amutoon yaakaar naa musiba ñu gën a dal muy Serigne Touba Xaadimu Rasuul yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na doole yàlla doole leeram taasuñu ci barkeem. ndax fi ne lu bon bon yëf yi yàgg na wax dëgg léegi mat weer ki yëf waaye ñu ngi sant suñ Tuubaa daal ndax boole nañu suñ nit bopp yoo xam ni ñoo ñu bëggal seen bopp dañu dimbalu ci seen doole ku su ne waaye yooyu yëpp dañ ci te wéy sëñ koro ndax bu yàggee ñooñee tamit dañuy lànk lan yoroon das koy téye ndax lii daa kenn xamut kenn daa xamut fu mu jëm ndax ba muy door a commencé dañ ko eefaloon kas rajab gi ñëw fomm ñu ni déeta waaye suñ jumaa ji ni ràpp hmm, kenn juleetut ajjuma ah nga ni tëdd loo huit heures yow bu yàggee fa nga jëm ak ñun mooy di ñu tere ñu tëdd ak suñuy soxna waaw loo xam naa fa nga jëm ak ñun nag waaye bala nga yegg ak ñun nag ñu wooteeg wallu woote yuuxu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu